tey jii ñu am tay tey jii di tew fii di sant Serigne Touba jaarale ko ci xeet defar suñuy di ko sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha boo xoolee soxna yi ñu ngi nii di préparer café gi wax dëgg si yàlla di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal ngërëmal Cheikh Ahmad bu baax a baax di leen gërëm tey di ñaan dëppoo ci ak ngërëmal Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Moustapha li ñuy def lépp c'est pour dëppoo ngërëmal Serigne Touba moo tax ñu koy def wax dëgg si la ak ndigal li nga xamante ne ci wàccoon na ci sëñ Moustapha xalifa général bi tarihatil haam al mouridia di ko sant bu baax te di ko ñaanal yàgg di ko noonu lañ koy ñaanalee ak Serigne Cheikh Jëmbu Fall mi toog ci toolu maam Cheikh Ibrahima Fall li lépp sant waaw waajale ko 18 safar incha allah waaw sant mbokki taalibe yëpp ay jàmbaar dëgg leen boo yi ñu ngi nii di segg café gi ay jàmbaar dëgg di leen sant bu baax a baax sant Serigne Touba rek sant rek amal ne le amal ne le café gaa ngi ne le yeggal fële yeggal yeggal eh xelil ko yow ah eh, naan akasa akasa Fall akasa akasa ak moom mu ngi yor ñaari kaas ak. léegi noo laaj safar gi ñu koy laaj euh, sëñ euh, kenn ci taalibe taalibe Cheikh la ñu koy sant bu baax di ko gërëm mi ngi fii di xewlu ci xewlu sëñ Bamba gi waaw bisimilah ñu lay laaj nan nga gisee safar gi nan nga ko dundee nan ko koy waajale bisimilah Cheikh Demba ñoo ngi lay ziar di la bëggee. waaw di la wax ni safar gi door nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim danañ ko eggale ci alhamdulilahi rabbil waaw di ñaan mboolem luñ sumb ci màggal gi yal na yàlla motali ko yal na yàlla defal ñu jàmm ñu fekke màggal gi ak ci jàmm dem ci jàmm ñoo ci jàmm safar gi daal mboolem luñ ci jubbu daal yal na ko yàlla eggale ak ci barke Serigne Touba. Ah, jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Omar di ko sant bu baax di ko gërëm. di ko sant bu baax di ko gërëm bu ko defee ñu laaj soxna yi nan lañ dundee safar gi bisimilah. dafa maam jaar eh, mu yéen yow doo fi ngay jaar eh. bu ngeen toppale seen fas yi. solo loolu am na solo. bu ko defee ñu jox suñ lampu. moom mi nga xam ne mbir mi yëpp moo ko waral wax dëgg sa yàlla boobee ba tey mi ngi fii di sant Serigne Touba daaw jéeg ba ren nii la ko daa tombee ba nu diglee ndigalul ban joxee ndigalul safal ba tey ji mi ngi koy ànd ak Serigne Touba di ko joxe na mu waree di ko sant bu baax di ko gërëm moom Serigne Lamp Fall bu ko doxee ñu jox ko parole bi mu sant mu sant Serigne Touba bisimilah Serigne Lamp salaamaaleykum maa ngi nuyu di sant bu baax salaam waaw bis bi moom nii rek lay demee waaw sant rek nag waaw waaw sant bu baax nag loolu rek lañ ci bëggoon suñu borom defal ñu ko ci barke Sëñ Saliou yàlla na yokk lool ci barke Sëñ Touba jërëjëf bëgg nañ lool nag waaw jërëjëf kooku sëñ Lamp Fall muy ku baax wax dëgg sa yàlla depuis ban joxee ndigalu safar gi ba tey mi ngi koy ànd ak mbokki taalibe yi di ko safar ni mu waree di ko sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal mu dëppoo ngërëmal Cheikhoun Bamba Xaadimal Mustafa jërëjëf ñooñu ñooy euh, ñoon ef la danoo dikkan ngir xéwlu ci xéwal ak Sëriñ gi di leen sant bu baax di leen gërëm di sant di leen gërëm kooku ngay gis ci ginnaaw mooy soxna May waaw kooku soxna F ak soxna kii soxna Nday di leen sant baax di gërëm ñoom tamit ay jàmbaar la ay jàmbaar lan lool.